asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di ziar bu wër a wër tey nag ñu fas ne dalal tey benn kilifa goo xam ne kenn du ko présenté ci Sénégal di maaraame aussi di homme politique sëñ Modou Bousso Dieng ñoo ngi lay ziar wër. maa ngi leen di fay waa Sénégal di kontaan trop ci recevoir leen di bëgg trop ci am entretien ak yéen euh, sëñ bi ñu gis ne temps yi coowal maa waxoon ne musuma wax dafa lëmbee réew mi bu si mujjee rek mooy kilifa njiitul réew mi bu mu demee temps yi mu ne musul wax ne kilifa diine et citoyen ordinaire lañ ce qui nañu ay jamono coowal loolu lëmbee woon na réew mi yow sa bokkoot nga ci ñu gënoon na siwal wax jëf yooyu mu waxoon ñu gis ne aussi loolu bu mu ko waxaatee tamit coowal lool aussi dafa gën a yeewaat yow bañ jàngat nga gisee waxee wax lii am kàddu yu mu yëkkati. Ah, jërëjëf maa ngi lay sant la gërëm waaye effectivement man ak rahmatullah alayhi Oustaz Sidy Lamine Niass ñoo ci gënoon fës ci ak jël position par rapport ak déclaration boobu wante euh, xam nga hmm, entre fait wala entre parole et l'acte du benn Macky Sall loolu image yaa ngi fi moo ko wax xëy na arrangé ko tey bëggatu ko tey parce que xëy na euh, bëgg na refus ci kër kilifa diine yi mais moo ko wax image yaa ngi fi mais bi mu ko waxee mu ci wax ji parce que wax daal mën nañu dafa juum mais loolu la def c'est ça qui était sa politique parce que de la moo ko wax mais indiwaatal lim def début bi mu soog a toog en 2012 ñaata kilifa dina la fi arrêté surtout côté Touba moom ça a vraiment revanche rancune boo xam ne boo xam ne kenn mënu ko weddi euh, kilifa dina ñaata kilifa dina la fi jàpp ñaata kilifa dina la nangu véhicule yi leen ab Ablaye Wade joxoon. ñaari kilifa dina la nangu seen passeport diplomatique yooyu yëpp sont des actes posés par lui-même en tant que en tant que président de la république kon xëy na boobu loolu moo nekkoon politique am tey il a changé comme comme politicien comme ni ñuy def ñoom mun nañ mboq tey bu subaa ñu bulla ginnaaw suba ñu ñu euh, donc tey arrangé tu ko et xam na ne loolu yàqal na ko lu bëri te tey xëy na euh, Sénégal presque divisé na ñenn ñi fees nañ benn côté ci ñi ci yenn xale yeeg yooyu foofu la ñu féetee Euh, moom il faut que moom beneen force bu mu bu mu bu mu bu mu recourir pour faire face donc kilifa dina yee fi des donc il faut que mu régler question boobu parce que c' est tellement gênant euh, euh, c'est des propos yoo xam ne xam naa su ko waroon waxaat du ko su ko waroon waxaat du ko defaat foo foog politiquement mu retiré ko pour mën a avancer ñoom xam naa loolu moo tax mu mu tenté pour enlever ko lii laa jublu woon mais lu mu ci jublu woon parce que parce que parole moom wax rek la mais fee nag moom. moom lim def parole la bu ànd ak intention réalisée loolu mooy acte muy acte imposé contre les religieux tout le monde la euh, la constaté. ñu gis beneen fee boo xam ne dafa lëmbee réew mii muy mbirum troisième mandat mais lu si gën a feebu lu si gën a am remarque bu ñu ci gën a def ñu bëri ñu ngi ciy wax mais kilifa diina yu bëri ti wax waxuñu ci yow ba njàngat nga ci gisee. Euh, waaw dégg naa dégg naa. ñu bëri sax euh, xale yu génn dal ci kaw kilifa yi eh, waxuñu ci su ëllëgee buñ buñ ñu ñaanee xale yu réew ah ñàkk kersa ñàkk yar dañ leen war a corriger gis nga il faut que kilifa dinañ faire face parce que li ma gis nii ce des attaques organisées ce des attaques yoo xam ne non seulement dañ ko dañ ko organiser mais mais mais mais mais ce sont des attaques coordonnées yoo xam ne si eh, presque ci benn camp rek lay jógee il faut que ñu faire face parce que Euh, kilifa diine yi duñu ay xudaat duñu ay umara duñu ay awliyaawul amr yoo xam ne dañuy joxe ay ahkam je de ceci dire duñu ay duñu ay juge yuy joxe ay décision wala ay arrêté wala ay jugement ñoom ay murshidun lañ yuy joxe ay ay joxe ay irshadat ñoom ay ay mm, régulateur lañ ay gudd lañ yoo xam ne dañuy joxe ay orientation su fekkoon ne ñoom tey dañu am ay jugement yu ñu joxe day nekk ahkam diniya day nekk ay jugement religieux kon kon seen leader yi ñuy protéger ñoom la ñu njëkk attaqué ne leen eh yéen ñi fi nekk nii bàyyi leen jabari jàmbur di ngeen di àndool di lëngu di fotowu su kilifa diine yi doon jugé dañuy wax ne leen hey bàyyi leen seen leader yi jigéen ñi ñuy nuyu dafa aram kon kilifa diine yi seen leader yi la ñu njëkk dal ba noppi ni leen bàyyi leen jigéen ñi ngeen takkul ngeen di ànd ku ne ànd ak ñoom di lëngoo gis nañ ko fii ñëpp ci pouvoir ci opposition ci ñëpp su su jugement doon am kon ñoom lay njëkk attaqué kon suus kilifa dine waroon am ku ñu seen leader yi waroon njëkk attaqué ba pare c'est ça et puis ñoom combat bi ñuy mënee c'est lu ci yoonu kilifa diine ce n'est pas un religieux kenn xeexu fi pour kenn xeexu fi pour Sénégal nekk une république islamique kenn kilifa dinañ am obligation pour jël position surtout ngir waxal leen ñoom li ñu bëgg a wax mais reewande kese la reewande kese ak yaree di ko ak xamadi lu tax ñoom seen bàyyi waxul mais kilifa dina yi ay mais kilifa dina ay bàyyi jàmbur lañ ñoom ana seen i bàyyi wala ñoom seen i bàyyi dëkkuñ ci réew mi wala seen i bàyyi valable ils sont lésés leur père seen bàyyi ci seen biir kër yi dem attaqué bàyyi jàmbur ne oui parce que lu tax waxuñu parce que dañ leen a jox su amee ay corrompu seen bàyyi ci biir kër gi noppi la pourquoi kilifa diine kese ñoo am obligation wax kilifa diine yi tax ñuy agité matin ok donc kon kilifa diine yi nañ leen respecté parce que loolu lañ mérito euh, ce n'est ñu suivre leen leen li ñu bëgg wala ñu wax ko ci forme bu ñu ko bëggee par contre Macky Sall nag dafa ak dafa am fumiste bu am ci politique bu muy def fumiste rek ça veut que muy boolee kilifa diine yi ak askan bi parce que exemple su taxawee ne man duma def troisième mandat wax ko Sénégal yëpp dégg ko euh, fu mu dem wax ko ñi koy jàppale ñëpp soxna si jiite tey sa liste soxna Mimi Touré Seydou Guèye son porte-parole Abdou Mbow bi ko doon défendre Ismaïla Madior Fall ancien ancien ministre de la justice mais aussi co-auteur de la constitution Macky Sall lui-même Bon Dionne son ancien premier ministre tout le monde d'accord nañ ci ne kat mandat bi ci la te Macky Sall yokk ci ne man maa defar constitution bi man maay auteuru constitution bi ça veut dire que son avis mooy moom moom mooy prévaloir sur tout avis parce que moom mooy moom mooy euh, auteur de la constitution moo ko defar ça veut dire que moo jël principe am bind ko principe bi mu bind lan la bëgg exprimer mooy kenn du fi def nul pour faire plus de deux mandats consécutifs ñu ne ko nul boobu est-ce que bii ci la mu ne bii ma nekk ci la après man deux mille vingt quatre pare naa ci muy olof yu leer dem wax làkk ko tubaab làkk ko lépp muy wax ju set wecc su demaatee ba ci biir mu bëgg ci génnaat di commencé dem ci chef religieux yi su demee ñu ne ko ah yow ko baax nga ah yow jërëjëf ñi ci sa ginnaaw mais foog nit ñi bañ leen foog nit ñi ne non ñi ñi ngi dimbale naafeq bii ci jëf ji waxuma nag président de dama ne bëgguma utiliser baatu naafeq ci président mais dama ne jëf ji ki def lii muy jëf bu naafeq ñëwaat bëgg ci génn bëgg bëgg ko changer ñëw ci yow kilifa diine bi yow nga ne ko noo ko baax nga su boobaa ñii toog di seetaan ne ah mais monsieur yow tam xanaa waxuloo yàlla. loolu loolu loolu vraiment c'est flou hein loolu il faut kilifa dina aussi moytu ko alors euh, mais nag kilifa dina aussi ñi ngi wax man mi wax ak yéen exemple parce que kilifa dina aussi mën nañ waxte te wax ci faron bi ñu ci des di waxee mën nañu wax te duñu wax ci micro mën nañu wax te duñu wax ci télé diplomatie dafa leen obligé exiger leen bu ñu amee gan ñu rafet ak moom ba ci yéefar comprendre nga man kaanu billaahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu la ku ñëw di gan surtout nag di buur te buur dañu am obligation boo demee ci tarbiya dañ lay jàng ne obligation yenn saa sam nee na képp ku faatu te nekkul ci kilifteef maata mitan jahiliya képp koo xam ne si euh, faatu na te nanguwul kilifa faatu na ci ci ci ci ci meddu jahiliya donc kon jullit bi dafa am obligation nangu kilifteef parce que ñoom pouvoir yàlla la ñu loolu kon bu leen recevoir diplomatie bi ñuy def ñoom am na beneen réalité bo am boo xam ne yow mën nga ko bañ a xam kon yow li nga gis kese doyul pour nga juger kilifa diine yi man exemple Macky Sall fekk na ma ci benn dëkku diine il a été 22 heures passées bi mu ñëwee mu dem gisanteeg xalif généralu dëkk ba yal yàlla na fi yàgg te wér je m'arrête là je je. mën nañu xam ban xalif ngay wax nga baaxee na ko. tudduma kenn tudduma kenn. su may wax ak yow yow moom da nga curieux <laughs> journaliste je damay damay damay wax daal le principe hmm, fekk na ma ci dëkku diine vingt deux heures passées bi ñëwee dem gisanteeg xalif généralu dëkk ba ba noppi wax nañ ma ne parce que fekkewu ma ko nag moo tax je mets tout en conditionnel wax nañ ma ne wax na ko affaire troisième mandat la ko wax si woon mais bi mu commencé la ko ne tegal fi suuf mu insister mu ne ko bul yee fitna mu bëgg a expliquer comme yi wax rek constitution ceci ou cela constitution dégg naa sax am na ñu ne ma constitution bi eh, am na retour bi ba wan na ko ba na ko tubaab yi pour légitimer son éventuel troisième mandat bëgg a bëgg a théoriser constitution kooku ne ko ku baax ki ne ko yàlla na fi yàgg te wér ne ko as soo waxanteeg say nawle ba ngeen bañ fekk la ci lenn da ngay fexe ba wàccoog ñoom ci loolu il a été très ferme mais loolu RTS su ko génne keneen di ko wax pourtant dëgg la immédiatement Macky Sall nee nañ xaaru fa sax reer bi ñu ko doon toggal il a presque boudé parce que man damaa toog sama buntu kër damaa toog sama buntu kër rek xew xew juróom-baat ma may leen mais ne ma ñu ne ma PR mooy génn mais ah dugg fi woon léegi ñu ne ma ah moom kay mooy génn noonu yàggu fi de après ma laaj benn kilifa boo sës ne ko waaw euh, seen gan bi yàggu fi de mu ne waaw moom kat paraît-il daal kilifa gi lii la ko wax fermement donc euh, sama buntu kër sama buntu kër donc euh, kon dak yaakaar naa ne ñi si sibir xam nañ fan laa wax hmm? voilà sama buntu kër la la ma romb si entrée bi toujours su entrée am naa kër foofu suma kër yi. ban kër bu nekk fan la mën nañu ko xam s'il te plaît. <laughs> bon man nag presque à part à part Dakar à part Dakar presque Touba rek laa am kër. voilà à part Dakar kër bu ma dëkk noonu daal à part Dakar voilà am dëkk mais je m'arrête là tudduma kenn nag tudduma kenn xam nga dëkk bi ni muy demee bala ñuy waxee mais li ma la wax nii nii lañ ma ko waxee donc kon kilifa di nii ñu ngi wax tegal fi suuf un bul yee fitna deux soo seqee say say moroomi gor bañ fekk si la ci lenn da ngay fexe wàccook ñoom trois lii doy na am doyut voilà nañ bul yee fitna mais gis nañ ne temps yi fitna gi bëri na ci réew mi trop lu ko waral muy di élection législative yi ñu jëm euh, mu nekk côté opposition ñu ngi xëcc fii côté parti au pouvoir aussi ñu ngi xëcc fii euh, aussi am nay manifestation yi si jot am yu bi passé le 17 juin bi nga xam ne am na ci ñu bëri ñu ñu teg loxo yoon teg na leen loxo ñu si mel ni ay député aussi ñoom tamit ñu ngi waajal le 29 bii nii aussi beneen manifestation malgré préfet bi génne na benn arrêté di tere benn manifestation yi pour pré campagne yow na nga jàngatee lool. bon damay wax ne rek c'est la première fois que trois députés soit en détention en même temps si Macky Sall la amee mais n'oublie pas que Macky Sall bi muy ñëw 2012 25 responsables parti démocratique sénégalais ñi ngi woon en détention ça veut dire que dictateur naturel la ñaa leen moom c'est un dictateur naturel qui le connaît le sait simplement peut-être. amoon na nag yar tuuti ci definam moo gën a yaru si comportement am ñi ci des ça euh, euh, euh, ça ça il faut le reconnaître amoon na teey aussi daal su ma saan wax nga seetaan ñi ci des di nga gis kilifteef mais nag maintenant day il devient plus en plus un dictateur arrogant ça veut dire que na ma nit da dictateur mais yar bi daf ko daan nëbb mais léegi nag dafa dafa mel ni dafa xool lépp sànni daal xam naa il commence de perdre la sérénité parce qu'il arrive juste en terme de de son dernier mandat amul successeur sérieux crédible bu mën a présenter peuple bi parce que le l'élection présidentielle est entre entre un peuple entre un homme et son peuple mënu fi préparer kenn ci 17 18 mois ba mu am am chance pour mu présenter ko peuple bi ci këram confusion totale moo fa nekk moom bëggul woon dauphin bëggul woon numéro 2 ñëpp yàq na leen donc tey war na fi bàyyi kenn c'est quasi impossible te ñett fi nekk Sonko peut-être moo ngi fii en tant qu'opposant Khalifa Sall moo ngi fi en tant que opposant Sonko gis nañ haine bi nekk seen diggante kii buy wax da nga koy sentir kee buy def da nga koy sentir Khalifa Sall euh, détenir na ko plus de trente trente trente deux ou trente six mois Karim Wade trois ans et quelques ah ñi fi nekk bonne pole position ñëpp kenn ku nekk tëj na la donc xam na moom kon bu leen fi ko fi xaar amaatu diinu tuddaan waaw euh, euh, xam na ko daal bu baax donc il est obligé moo tax mu jël risque yëpp. tous les risques dégg naa bërki démb dégg naa bërki démb ñu ne renforcer na l'armée pour que ñuy intervenir dans les trucs xam nga xam nga armée maintien de l'ordre ce n'est pas son rôle ah armée c'est c'est euh, euh, c'est son rôle mais au lieu de de mais je dis une chose au peuple sénégalais euh, Ben Ali Zeynoul Abidine Ali ak ak euh, ak Hosni Moubarak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk c'est des milliards c'est des milliards de dollars nga génne woon lu ëpp biir Sénégal jënde ko ay armes pour renforcer euh, l'armée et la police pour la répression finalement ils ont été emportés par leur peuple parce que la souveraineté revient exclusivement au peuple et puis quand un peuple décide l'armée ou la police ou la gendarmerie n'y peuvent absolument rien ça il faut le savoir moo tax bon courage ci ñuy xeex démocratie bon courage Hmm? Euh, faire face à un dictateur euh, vraiment c'est difficile mais c'est honteux que Sénégal fi mu toll ak moom ni bi mu ko fekk niveau bi mu ko donné tey ñuy wax ay troisième candidature ak armée dañuy dooleel armée pour vraiment maintenir l'ordre ak ku ci jàppale nag comme mën a doon donc et puis mettre en garde encore une fois une fois encore nos nos nos guides religieux que ñoom islah sakul bayn mooy seen rôle mooy régulate moom mooy régulation sociale bi leen yàlla dénk ah ñi ngi ci nag ah, ñi ngi ci rapproché wu ma leen dara te it maa ngi dal ci kaw ñi reew ñàkk kersa bay seen bay di attaqué bay jàmbur yi ñoo ñu ñoo fi njëkk indi indi confrontation ñooñu confrontation ñooñu ils sont pires que Macky Sall ñu ñu leen Euh, te xam ne bokkuñoo ak ñoom temps bokkuñoo ñook ñoom façon de faire bokkuñoo ak ñoom méthode mais ñi ngi ci li ñu war a def diw bàyyi lii diw yokkal lii diw soo mënee def nii yow yow diw manifestation ginnaaw soo bi bàyyi ko ah yow diw yi téyel sa policier yi truc donc ba régulation am yëf yi mën dox ah loolu lay loolu la comme ni policier def ci circulation rek yow mi taxawal kee avancer kee noonu mooy seen doole ñoo ngi ci kon voilà.